national ànd ak ay partenaire am Saloum Diega World Trading Clinique Marie Al Madina International Travel ñoo leen di may seen émission wérgu yaram les mercredis de docteur Konaté. bonjour euh, auditeurs Sen Info euh, euh, bi des dañuy wax tey ci benn feebar boo xam ne c'est d'actualité et damay def émission bi tey surtout pour euh, alerter ah pour alerter euh, magal baa ngi ñëw suñu mbokk yi bon ñu dem euh, Touba. ah benn lii dina jolli euh, dina am ñoo xam ne seen loxo duñ ko yar et surtout suñu malade yu particulier yi euh, diabétique yi ak hypertendu yi mais tey euh, principalement dañuy wax waxu diabète ah, dañuy wax waxu diabète pour euh, tirer benn euh, sonnette d'alarme donc euh, damay commencer comme euh, d'habitude par def définition suñu élément donc tey diabète diabète lan mooy diabète diabète mën nañ ko définir comme étant un état d'hyperglycémie chronique hyperglycémie c'est-à-dire suukar bi moom moo jóg ci deret bi euh, jël am ay taux yoo xam ne yu supérieur à un virgule vingt six donc euh, ci glycémie à jeun bu fekkee nit ki lekk na tuuti glycémie bi bu fekkee supérieur na à deux grammes par litre en ce moment également loolu mën nañ ko considérer comme étant donc un diabète donc euh, essentiellement tey dañuy wax waxu euh, diabète de type 1 on a deux types de diabète ah diabète de type 1 ak euh, diabète de type 2 am na ay cas particuliers notamment lu ñuy wax prédiabète lu ñuy wax Euh, diabète euh, gestationnel bon loolu peut-être euh, c'est un peu plus spécialisé dinañ ko brosse ci yeneen émission pour xamal ko nit pour ñu ah. donc diabète type 1 moom mooy diabète bi nga xam ne ce sont les sujets jeunes ñoom ñoo koy am sujets jeunes maigres donc avant 30 donc boobu diabète euh, origine bi euh, c'est une origine euh, immunologique donc c'est lié li nga xam ne moom moo koy indi benn destruction cellule yi nga xam ne ñoom ñooy produire insuline donc ci diabète boobu du ñu am dara ci insuline donc di ngeen convenir ak man que faj bi ah euh, tout de suite euh, suñu posé diagnostic bi donc tout de suite dañuy euh, faj bi ay piqûru insuline la fi ñuy posé diagnostic bi ba juste jusqu'à la fin ah donc diabète boobu à traitement c'est de l'insuline beneen xeetu diabète bi nga xam ne moom la ñuy wax moom mooy diabète de type 2 moom mooy diabète du sujet âgé donc euh, des survenir bu fekkee nit ki am na plus de quarante ans en général c'est un sujet euh, donc euh, ce, ce sont ça survient donc c'est des sujets obèses et l'âge de survenue donc est supérieur donc euh, à 40 ans euh, si boobu diabète en général traitement bi ce sont on donne ce qu'on appelle des antidiabétiques oraux mais am na foo xam ne su fa tolluwee euh, les gens seront obligés donc euh, de mettre donc de l'insuline pour euh, pour son traitement dañuy wax diabète donc sànq wax naa leen damay tirer alarme bi tuuti pour wax suñu mbokk yi suñu demee si màggal bi quand nañu Euh, nañu am li ñu tuuti retenue nañu am tuuti na nañu ñi nga xam ne dañu feebar ñu xam ne que ne dañu feebar et même bu fekkee dañuy dem pour màggal euh, bu ñu ëppal ah, bu ñu ëppal donc nañu xam euh, fu ñu war a yem nañu xam ne que ne dañu feebar li nga xam ne tamit moom moo tax ñu ci wax tey ce son des éléments Euh, d'épidémiologie parce que diabète par exemple au Sénégal ça peut toucher touche entre 10 et 11 pour de la population euh, de population générale donc euh, euh, population Sénégal ëpp million 16 millions 16 millions donc d'habitants donc ngeen suñu defee calcul bi rapidement mën nañu gis ne que au moins entre un million 600, peut-être 1 800 de personnes sont touchées. Et parmi ces 1 million 800, euh, diabète de type 2 bi moom moo si gën a bare parce que c'est à peu près 80 à 90 pour cent de la population atteinte ñi nga xam ne donc ñoom ñoo feebar les 90 pour cent à peu près diabète euh, de type 2 euh, la. Euh, de à travers euh, le monde à travers le monde euh, diabète bi prévalence bi mi ngi tourner entre huit et quinze pour cent selon les les pays donc les pays en général les plus touchés ce sont les États-Unis et le Mexique donc euh, où on des prévalences qui vont atteindre donc les 15 Donc euh, le diabète c'est un problème donc de santé publique donc euh, nit ñi war nañ ci euh, gën a farlu jox ko gën a gën a ko jox gëdd c'est-à-dire euh, jox nañ ko gëdd mais war nañ ci gën a farlu parce que mi ngi gën a law mi ngi gën a law mi ngi le nombre mi ngi augmenter et les complications également ñi ngi gën a augmenter donc euh, pris en charge bi dafay euh, euh, day gën a difficile diabète naka lay manifesté wo naka lay manifesté wo ça se manifeste par ce qu'on appelle un syndrome cardinal c'est une euh, association polyuro, polydipsie, polyphagie et amaigrissement. Polyuro, nit ki dafay tuur ndox lu bëre surtout la nuit. Euh, polydipsie nit ki donc dafay mar donc tout le temps day am envie di naan polyphagie nit ki tamit day am toujours envie lekk lu bëri donc euh, diabétiques yi en général dañuy lekk bu baax mais paradoxalement paradoxalement ce sont des gens qui maigrissent donc c'est l'amaigrissement donc euh, moom mooy euh, quatrième élément wu donc syndrome cardinal donc soo waxee syndrome cardinal donc c'est quatre signes donc amaigrissement malgré nit ki lu muy lekk yëpp lan mooy euh, facteur de risque yi ah facteur de risque yi dañ koy retrouver surtout chez les diabétiques euh, de type de euh, parmi donc les facteurs de risque euh, mën nañu citer ce qu'on appelle l'obésité nit ñoo xam ne dañu dañu am yaram wala ñi nga xam ne dañu nekk en surpoids c'est-à-dire ils sont pas obèses mais c'est-à-dire seen poids dafa xaw a euh, ëpp lii nga xam ne loolu nañu soxla mun na nekk euh, également une sédentarité nit ñoo xam ne dañuy xëy rek suba ba ngoon toog ci benn place du ñu def benn activité ou bien benn activité physique en ce moment laa euh, ñooñu tamit dañuy augmenter seen risque pour def seen diabète le sexe également parce que on retrouve euh, beaucoup plus d'hommes diabétiques que de femmes euh, diabétiques donc sexe dafa dafa daf si am rôle euh, l'âge également l'âge plus ñuy avancer en âge donc plus ñuy augmenter suñu risque d'être diabétique surtout su ñu amee ce qu'on appelle benn facteur boo xam ne c'est l'hérédité sa pap su diabétique Euh, mun nga jabet sa yaay su jabetee euh, da ngay également mun nga jabet euh, bu fekkee sa ñaari parent yi dañu diabétique da ngay augmenter également le risque d'être diabétique ah da ngay donc le risque d'être diabétique il également beneen facteur bi ñuy wax le facteur ethnie donc c'est beaucoup plus fréquent chez les euh, Africains, chez les Arabes également, chez les Asiatiques, les Américains également. Hein? Les Américains, donc euh, il y en a moins chez les les, il y en a, il y en euh, continent yi mais essentiellement africains yi et américains yi arabes yi donc euh, euh, sont des Euh, des ethnies yoo xam ne euh, donc euh, feebar bi dafa fréquent si donc la maladie soit ñu dañ koy découvrir au moins un traitement ou bien au moins un traitement de façon donc tardive et quand on met un traitement de façon tardive qu'est-ce qui peut se passer Il peut apparaître ce qu'on appelle des complications. Et les complications les plus fréquentes, euh, c'est quand il y a une atteinte donc, euh, cardiaque, donc le cœur, s'il est touché, on peut avoir une insuffisance cardiaque ou bien un infarctus. Si le rein est touché, on peut avoir... Euh, une insuffisance rénale. Donc, euh, si ça devient chronique, ça va même être le sujet euh, donc d'une euh, de, de, nos, de, de mes interventions. Donc, insuffisance rénale, donc ça peut être chronique. Vous faites que c'est le cerveau qui est touché, on peut avoir un AVC. Vous faites que ce sont les vaisseaux qui sont touché ou bien les nerfs on peut avoir des vasculopathies ou bien des neuropathies am na benn complication boo xam ne euh, moom la on peut avoir des complications infectieuses euh, mais am na benn complication boo xam ne c'est une associa euh, association atteinte nerveuse et atteinte infectieuse c'est le fameux pied diabétique loolu la diabétique euh, yëpp euh, ragal di craindre donc s'il y une atteinte du pied le risque c'est l'amputation donc euh, c'est pour vous dire que ça peut être grave donc ça peut donc être dangereux am na benn complication boo xam ne également c'est assez fréquent c'est fréquent surtout chez les diabétiques de type 1, c'est l'hypoglycémie. On peut voir ça chez les diabétiques de type 2, hein, mais une hypoglycémie peut apparaître beaucoup plus souvent chez les diabétiques de type 1 et ça va être, euh, je ne veux pas rentrer pour l'hypoglycémie dans les détails, mais ça va être l'objet d'un autre sujet, on va en parler. Donc l'hypoglycémie également, c'est une complication qui peut être dramatique, qui peut entraîner donc euh, le décès donc euh, du sujet. Donc vu toutes ces complications là, donc euh, comme on dit, mieux vaut euh, prévenir donc euh, que guérir. Maintenant, par rapport à son au, traitement donc euh, du ñu naa ko sax bi may wax. waxu définition bi euh, traitement bi le plus souvent ça dépend du type de diabète bi nga xam ne moom mooy manifeste moom moo moom mooy apparaître si c'est le diabète de type 1 je l'ai dit c'est l'insuline insuline donc euh, à vie euh, si c'est le diabète de type 2 ce sont des comprimés qu'on donne euh, aux diabétiques. Donc on appelle ça les antidiabétiques euh, oraux. Et si toutefois euh, on assiste à l'apparition de complications en ce moment-là, non seulement ce sont les antidiabétiques oraux qu'on donne, mais également mon anti associé donc euh, de l'insuline. donc euh, essentiellement loolu la amoon tey pour apporter leen donc par rapport à à cette euh, maladie. e euh, je j'insiste encore pour euh, euh, suñu mbokk taalibe yi suñu mbokk murit yi si màggal bi ñu ngi leen di souhaiter vraiment un très très bon màggal mais bu leen aggraver donc seen feebar ñi nga xam ne xam ne xam nañu donc seen état donc damay terminer donc émission bi comme d'habitude di remercier sama partenaire yi Abdel sama caméraman et puis monsieur Ndofène donc euh, nga xam ne moom moo ñu permettre euh, ñu def euh, émission bi du ma terminer également sans remercier sama benn papa boo xam ne daf may jox euh, beaucoup de conseils euh, par rapport il est très intéressé donc par euh, euh, les émissions que je fais euh, je veux parler de Serigne Ibrahima Dramé bu nekk aux Parcelles euh, merci beaucoup aux auditeurs de Seneinfo et au la prochaine merci International ànd ak ay partenaire am Saloum Dieda World Trading Clinique Marie ak Almadina International Travel ñoo leen di may seen émission wér-gu-yaram les mercredis de docteur Konaté